asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi suñu mbokk journaliste yëpp di sant yàlla d'abord si lépp loo xam ni moom la bëgg a wax ndax bu ko neexoon bii balaa maa wax mu jël sama bakkan comme mu jëlee bakkanu xale kon dañ koy sant ci mu bàyyi ñu ñu am temps mën a wax ni ñi xam lan moo fi xew dañoo bëgg rek ngeen xam ni wax yi bari mais dañoo bëgg loo xamee ni que waxleen li nga xam ni moo leer fii service nataal bi service la boo xamee ni pôle famille lañ ko tuddee woon mu nekk ñaari salle yu mag yoo xamee ni falaxal yi nekkoon war a mun a jël treize bébé wala quatorze non quatorze bébé ak seen pondeuse vraiment loolu mooy li nga xam ni mooy li am insident bi nag. li ko indi exactement mu ñu ko wax exactement ne nii la parce que enquête bi mi ngi suivre Sonko li ma bëgg ngeen xam mooy salle boobu dafa am circuit boo xam ni circuit oxygène la circuit oxygène mooy circuit boo xamee ni liy jaar ci biir tuyau yi genre gaz la boo xamee ni moom mooy tax xale yi ñu mën a noy normalement ci am appareil yi ñu leen dugal parce que loolu moo jox xale yi possibilité mu nekkee couveuse ñu mun la toppatoo ba nga nekkaat nit bu normal yàlla def nag bi muy am incident bi fekk na fa ñaari sa fekk na fa sage-femme bi ak infirmière bi ñuy toppatoo xale yi à cette heure parce que heure boobu ci la ñuy defaraat xale yi defaraat seen couche ainsi de donc yàlla moo def heure boobu bu ñu koy def ci dëj dañoo jékki jëkki rek dégg benn bruit bu am muy explosion donc noonu la demee explosion bi nag trois minutes maximum la durée donc lakk boo xam ne trois minutes la durée nit mënut wax ne que amoon ngeen temps wala amoon trois minutes yi lu muy duré trois minutes yëpp yàlla def na avant cinq minutes yi di mot sapeur pompier agsi nañu donc ñi fi jotoon a nekk jëloon nañ jël inspecteurs yi commencé di jéem a fay lakk bi mais fekk na déjà li am am na ba pare parce que gaz bi dafa yokk dafa yokk euh, nu mu tudd lakk-lakk bi daf ko amplifier bu fekkoon ne amul woon instrument yooyu wala amul woon gaz bi ci biir du yokk ba pare ba teg si bi mu explosé dafa explosé waale les nu mu tudd les climatiseurs yi nekk si biir te xam ngeen kii yéen jëm ne climatiseur dafa am gaz aussi donc loolu moo tax sa ñaari saal yi hôpital bi lu muy yaatu yaatu yëpp lakk bi si ñaari saal yooyu kott la yem loolu aussi précision la bu leer boo xam ne il faut ñu wax ngeen xam ni que ci ñaari saal yi lakk yooyu rek la lakk bi yem weesuwul ñaari saal yooyu donc loolu aussi dafa dafa nekk loo xam ni il fallait que ñu ko nit préciser leen ne leen bi muy lakk tamit infirmière ci boo leen dégg ñu wax naan am na ñaar nit yu sauvé bi mu explosé comme dafa am gaz yooyu ñoom ñaar dañoo xëm ñoom ña fa nekkoon ñu sauvé leen jël leen yóbbu leen salle de réanimation reprendraat leen ba ñu nekk ay nit normal donc loolu mooy li fi xew réellement ngeen xam ni que nag ndogal yàlla bu ñëwee kenn mënu si dara kon dañuy jàpp ne ndogal yàlla bu ñëw la amul négligence amul leneen parce que loo xam ne en trois minutes lépp lakk na kooku nit négligence nu fee am vraiment loolu la ñu bëggoon nit ñi xam ko bu baax a baax te mu bañ a rek ay spéculation yoo xam ne amul njëriñ parce que tamit da ngeen di ku ne ay njaboot lañu ñi perte seen i doom am na ñu naxar famille yi perte seen i doom am nañu naxar kon balaa kenn di waxati dara na xalaat d'abord famille yooyu ba pare balaa ngay wax leneen parce que ku mu dal ku mu daloon si yow it li ngay jëkk xalaat mooy naka lañ la nit ñi ñëwee di a wax massa wala di nit ñi di la dëfal kon loolu dañ ci kontaan di leen sant yàlla di sant yàlla bi nga xamee ni président moo jëkk a commencé wax di defal nit ñi parce que nag dëkk bi fi dara xewee muy incident bu mel nii aman naa yaakaar ni balaa ko kenn di yëg président moo koy jëkk yëg yàlla def na bu mu ko yëgee tamit def na déclaration muy benn décrété na trois jours de deuil national à partir de jeudi nee aussi bu alxamis euh, bu samedi bu sabe yàlla dina ñëw seet si nit ñi pour compenser defe naa ne loolu boo ko defee rek bu ko defee war na doy message bi may lancé mooy yéen journalistes yi ma ne dama ne li may wax mooy yéen message bi may lancé mooy ngeen bàyyi commentaire tey wax li nit yi wax bàyyi leen commentaire bi commentaire bi day yàq parce que boo commentaire jaar ki ko def boo xam ne nit ñi waxuñu loolu day day nekkaat beneen musiba or nit ñi dañoo lañ leen war a dëfal ñu teg loolu mooy sans message ngeen yem si seen ci li nit ñi wax te ngeen dëfal nit ñi moo gën ngeen yokk tension bi nit ku nit nit du am naqar ñaari yoon loolu laa amoon li may wax ci olof